septembre 1895 juróomi fan ci weer septembre 2018 booba ak léegi am na téeméeri at ak ñaar fukk ak ñett gannaaw ba nu attee Cheikh Ahmadou Bamba ca Saint-Louis nekkoon capitalu AOF ndam li nga xam ne ki doon liggéey la sallallahu alayhi wa sallam am na ko ci ay noonam tey nekk na lu ñuy màggal di jaare ko ci ñaari rakk yi nga xam ne moom julli woon na ko foofa ci bureau guverner ci fàttaliku rek ki di Cheikh Ahmadou Bamba dañ ko tooñoon tuumal ko ni dafay waajal fetal jiyaar jëmale ko ci réewum France moo tax ñu àtte ko woon ci conseil privé nekkoon ci bâtiment bii ngeen di gis nekk tey guvernance wu Saint-Louis tey Cheikh Ahmadou Bamba ñëpp a koy màggal di ko fàttaliku di wéyal ab liggéeyam bi nga xam ne moom la fa defoon ci ñaari rakk yi nga xam ne julli woon na ko ci bureau gouverneur di màndalgal rek deteengal ak ñàkk gi nga xam ne France ñàkk na ko ci xeex boobu nga xam ne moom la sumboon ci digganteem mën si naa wax ne la lan nasaloon ni dañ koy génn réew mi ba am njàngaleem fargay loolu tey nekk na lu nit ñi mën a weddi bu ñu xoolee ñaaru rakk yi nga xam ne moom la ñu julli foofu ci ndar ñaaru rakk yi nekk na loo xam ne day màndargaal dund gi nga xam ne yoonu mu mi ngi koy dund ak doole ji nga xam ne yor na ko gannaaw ba nu jéemee ñoom seeni pexe yépp yu nu am ngir rek faagagal kii di suñu yaakaar tey ëllëg di Cheikh Ahmad Bamba ñaaru rakk yi nga xam ne moom lañ julli foofu ci ndar ci kanamu gouvernance bi rek benn symbole boo xam ne day wane ne jullit bi rawatina jaam bi leen rek la war a xintewoo ci àdduna muy jox boppam yàlla wóolu yàlla doyloo yàlla wólis muy am kenn ku muy ragal ci àdduna ak i pexeem te loolu kenn rek moo ko jëmmal muy Cheikh Ahmadou